nataal fanweer yéesu neena na kenn mënuta topp ñaari sang mënoo bëggandoo yéesu ak seytaane danga war a tànn kan ci ñoom ñaar ngay topp yéesu wala seytaane ñaari nit ñi tànn nañu moo tax ñu sànni seeni xërëm yi ñu doon topp ci safara si ñoom déddu nañu seeni dund bu yàgg bi ñoom bàyyi nañu yoon bu ban boobu seytaane jiite ba léegi dañuy topp léegi yéesu bu fekkee tànn gi yéesu ba bëgg a dund ni moom mu doon sa sang yow soxlawoo am looy tiit ndaxte yeesu moo gën a màgg te ëpp kàttan saytaane te mu ne kàttan bépp jox nañ ma ko ci kaw suuf ak ci asamaan te ci kaw bant ba yéesu jële na fa ndam te seytaane daan nañ ko fa yéesu xam na la te moo lay aar mu ne man maay sàmm bu baax bi xam naa samay jur te samay jur xam nañ ma te dinaa joxe sama dund ngir samay jur yéesu dina la giddi ci sa dund bu fekkee fees nga ak te di ko topp ci sell mu ne man maay leeraayu àdduna si te ku may topp doo dox ci lëndëm ci lëndëm gi sax moom dina am leeraayu dund bu fekkee yaa ngi topp yeesu doo mukk yeesu nee na yoon bi te booy topp yéesu dootoo réer mukk yeesu nee na man dëgg gi te booy topp yeesu soxlaatoo am ragalum dee yéesu newaat man maay dund gi